suñu amidum ci benn civil bu amul sax carte d'identité waaw non violence nga xamante ne mi ngi dajeek ñoom te yorul puso. ñu tëj frontière waaw booba mais nag attention espèces yi jëkk dem. Hmm. muy espion yi jëkk a dem Mbàkke Baari. Hmm. bi ñu ñëwee murit yi lañ jëkk a jàng muy ay nit ñu ñuul. dëgg la rapport bi nga xam ne jox nañ ko Patrick Leonardo dañ ne ko. Hmm. taalibeem yéenu gis. gëme nañ ko gëm goo xam ne bu taaloon kàmbuk sawara. sëñ am jub ñun murid yooyu lan war a roy. dëgg la waay dëgg la. taalibeem yéenu gis. li nga xam ni parce que booba ñaari tubaat ñoo fi euh, ñaari commerçant yi gënoon na riche à l'époque muy Moyel Krom ak Moyel Frère. sëñ Ablaye Diop xam na leen. waaw waaw ñoo daan financé colonialisation francaise bi nga xam ne ñoo nekkoon Afrique. Clément Thomas woo Robert Arlo ne ko wëral ma Afrique sëriñ si am doole nu mu toll. ndax ñoom jàng nañ hadiis yonent bi xam nañ ni ki yàlla yónni mu war a xaroo xeet wi war leen a dimbali war naa ñëw kan la war a doon Cheikh Ahmadou booba nag fekk nañu am soupçon ci moom mhm. ñu jortoo ko lambi jur de réew yi ñooro mbaa Seexi mhm. Maalik mbaa imaamu ñooro dañ ko ko jortoo mhm. mais amaguñu preuve ñuy wër rek ñuy wër rek parce que gis nañ booba fi mu jaar ak la joor gis fi jaar ak Baay yi gis fi mu jaar ak waajuram sëñ Mor Anta Sali ñu jortoo ko ko mais nag am ci moom soupçon taxut ñu war ko attaqué. dëgg la ndax amaguñ ay. amaguñu preuve mais rapport yi tubaab yi waat ci tubaab bi ne leen ñoom danoo bari comme ay yamb ils sont nombreuses comme des zébés mais ils sont braves comme des lions gaawe nañ ni gaynde boobu ñoom sëriñ ma ndumbee nga fa. Hmm. sëriñ Daaru Assane nga fa ñoom sëñ ma Bànji Njaay ñoom sëñ ma Fëri. man ñoo ñoo fa nekk mel noo xamante ne ba pare tubaab bi daal ne leen moom ndax am na xaalis ñu ne ko am na taalibeem boo xam ne mën naa jënd nguuru France suñu ami dun xanaa xamoo li tax nga xam ne waa ji ci ay fen la nekk ki doon wax ne sëñ bi da doon da doon déglu tubaab bi Robert euh, euh, euh, Clément kii tubaab bi tudd Robert mhm. Maubert mhm. bi mu nekkee njaarim sonal waa Jurbel ku génn mu mu mu jàpp la maam si xanta lañ ko wax mu dem ndar pour jëndi Maubert dëgg la ah, waaw ñëw ba ci gouverneur ne ko tubaab bi ne foofa doon commandant laa bëgg nga jaay ma. nga jaay ma ñaata lay jëm jënd ko. <laughs> tubaab bi ne ko premièrement tey laa mës a gis nit kuy jënd nit te commerce triangulaire bi jeex na. deuxièmement nit ku ñuul kuy jënd ab tubaab. <laughs> mu ne ko yow dañ la fee teg rek. <laughs> te ab xaalis képp ngeen bëgg. Mhm. mobeer nga may jaay. moom jëndul nit ku ñu. sëñ tubaab maam si Anta njëkk bëgg a jënd tubaab. ñu ne ko loo koy doyee mu ne bu ma ko moomee ba mu rew ma ngeen bindal ma këyit ma rendi. ma rey ko da koy rey da ko doon rendi. daal dina ko tey it mu ne ko yow dañ la fee teg rek sa kilifa nga Paris danaa fa dem jox ko xaalis bu tax mu jaay ma mobeer. dëgg la. tubaab bi pour mu gérer sëñ gaawaan dana ko dellul ba jour sàng boo ñëwee ñu jaay la ko. Hmm. ndekete boobu tubaab yaa ngi préparé bagage si pour affecté ko mu génn njariñ hmm. maam Cheikh génn tubaab bi njaari waxaale tubaab waaw commandant Maubert suñ gaawaan dem na bay waxaale raay bi daal ne barrage bu nekk mu def ci juróomi dërëmu nguru ci njolante njaay waay laa <laughs> ilaaha ne ab téléphone la daan waxee ak ndakaaru ak ndar ak julbe rek Louga ak fugaar yam waaw fugaar yam koo ko xoolal da daan raamal suñ tubaab ndax booba xam na ni sëriñam gañe na guerre bi te ngi njaariñ la ñu ne dañoo bari comme ay yamb gaawe ni gaynde kon ñoom dañoo ñëkk tuumaal ko waaye amuñu benn preuve bu war na ma tax ñu attaqué ko. waaw mais sëñ Mamor sëñ Mamor est-ce xam ne tubaab bi bu amoon benn défaite bu mu xam ci sëñ Touba publié na ko depuis 1927 avant 2021. ah bu wér mais fii da gis ñu ne dàq nañ fi nit jaasee ma ngi nii tubaab bi jël ko yóbbu. waaw dëgg dëgg. bi réseaux sociaux xewee ñu daal di koy génne. mu ne fang dëgg la. ñoom bu ñu amoon ku mën a caricaturer sëñ Touba ca Maison Blanche ba sëñ Mourtada Mbacke dem fa naan dindi leen walaay kon yàgg na wala def nañ ko bu yàgg dindi leen ñoom tubaab bi dem nañ ba Maison Blanche ñu bindaat fa ne sëñ Touba dellu si wul hmm. waaye lu tubaab génnewul tam gën a bañ sëñ Touba ndax nit ku ñuul mën na koo génne loolu nag mooy coowul dig nag sa waaje sëñ Abdoulaye dane woon <laughs> coowul mbott yi ci dégg du tee nag yaa naan yi dégg la sëñ Touba mais rek suñu am hmm. gars yi ñoo yay mer de hmm. ay ñoom Omar Diagne yi mais côté bu ne sëñ tubaa gaw ko te àndoog moom mais yaa yay mer man bu ma ci bokk bokkuloon damay mer de su ma gëmoon keneen ba noppi sëñ tubaa di def nii muy def wala ma bokk ci yoonu murit ba pare keneen mel nii sëñ tubaa mel du ma neex dëgg la dëgg la waaye nag nga géré ko nag dëgg la te xam ni loolu mooy sa cër ci nag bi dëgg la dëgg la moo tax léegi rek ñu ngi lay tudd ndeysaan ci ay kilifa dëgg la ndax dañoo bëgg mhm. masaalikul jinaan ajjuma bii di ñëw mhm. sëñ Amidou mm-hmm. taxawal na suñ groupe boo xam saytu yoon wi la mm-hmm. waaw ñu ngi ciy taxawu di ci waxtaan saytu yoon wi wax dëgg ci dugg waaw léegi masaalik danoo bëgg ajjuma jii di ñëw nag ñun ñëpp ñu jullee ji fa mun noppee def suñu déclaration sëñ Ablaye ñun bootawuñ ci kenn doxuñ ci kenn sëñ bi sëñ Touba kenn duñu ko sécuriser. waaw ñun ñoo ko bëggal sunu bopp. kenn duñu ko garder. waaw ñoo ko bëggalul. ndax dam waxoon dafa waxoon ne la sëñ Moussa Ka waxoon ne mbirum saayiram ak baatinam dara yàqu ko. déedéet dara mënu ko yàq. ni saayir si sete. ñu la baatin sëñ Ablaye. xam nga deful xejj buy jël saayiram. sànge baatinam xañul nit mbirum biiram xañul nit mbirum kawam. waaw garaaw nga te xoolal fa mu ko tàmbalee. waaw àddinaa ngi toll ni fi moom ni dënj mbaa xeex. boroom ay dënd sa xàmmeewu leen ak borom bi teeñ li lay tax mu daa tuubloo dammel ak maaxaaki tey ku mel nii ku am leeg moom na leen wër na yaa ko tooñ ku mel nii ku am leeg moom na leen wër na yaa ko tooñ du tooñ ndaw du merloo mag mënul gant lay dëkkam amul xaarma yàlla nit du xas nit ci waa këram deful xejji buy jël saa yiram sànge baatinam xañul nit biram biram xañul nit biram kawam <laughs> waaw suñu am gaay yay mer xam nga li xañul nit ñu. plateau bi laa leen di bàyyi léegi de. Ah, enseigné am nga lu neex <laughs> xañul nit mbirum biiram. waaw xañul nit mbirum kawam. barke Sëñ Tuubaa xam nga léeg-léeg ngay tàgg kilifa. mais am foo am lu bëgg nga laal ko. ndax day nekk biir. Sëñ Tuubaa nag boo duggee ci biir bi. génn ci biti bi zéro faute la ngay gis ci moom. zéro faute. mësta wéet ak i noonam ba tax mu saalit. mësta teg cin ñu koy tegal cin. mësta jëlee dara ci tubaab bi lu ñu koy dimbale. Mm-hmm. lu mu jël jox na ko yàlla boromam mm-hmm. mësta saalik mësta dellu ginnaaw mësta changer discours lam daan bind saa 1895 ak la ko jiitu looy bind ba bi muy wàcc liggéey mais kooku mooy xam nga xam nga xam nga sëñ Ablaye li ngay wax nii waaw sëñ am mës naa toogam yàgg woo mag ñi ne leen sama diggante tubaab bi nu ngeen ko teg waaw ñu ne ko mbàkkee nga dimbali nu ci waaw ca teggi ni mag ña waaw ñenn ñi ne teg xam na ni bëgg nañu mu tontu leen wallaay mu ngi leen daa mel ni kii daa ñëw ne lii laay def waaw am ku ñëw di ko teree ne ko doo ko fi defee waaw ñu waxante ba yàgg ñu ne rinkum ñoom ñaar. waaw ñëpp di leen seetaan. waaw ñu ne meññ ci menn xur. noonu la demee de terrain neutre. waaw ñu def fa diir bu yàgg. terrain neutre waaw <laughs> waaw. terrain ah, la. ñu def def fa diir ñu toog ba yàgg ñu gisaat leen nu àndi ñëw. waaw. waaye day li ngeen ci war a jànge am na lu lu ngeen ci war a jànge ñu ne ko lan mbàkke mu ne ka doon ne lii laay def ma ngi koy def te ka ko doon tere tereetu ko. waaw ah, loolu la yëf yi demee seen diggante ko sëñ Amidou tubaab bi ah. bu doon jox sëñ tubaab ndigal. waaw ah. masaalik du mel nii. du mel ah, nii <laughs> moo tax mu ne ko retax naa la paxtab yàlla yow waa ji may sewal ndegam gis nga kem Seex Bamba mi tax ma dib géwél mhm. ku simple te sellal nattangoog moom bëlës bëlës <laughs> desul ci mbokkam yi mbaa jàmbur yi mbaa gaa yi koy dikkal mhm. ma jébbal ko sa mbir def mu def ñëwal def ko ma topp la ba pare tamit sëñ ah. saaka loolu mu wax war naa tax ñu xam ne xelam dal na fu mu jëm bu yow mal xiyaamee ba arab puukéré ba xam danaa wax mais sëñ yaakaar ne moom foofa lay jox bi Sëriñ Tuubaa di di ko way dama ko war a way waaw naan ko danaa wax Sëriñ Tuubaa lu tax ah, arab ya dem waaw ah? Ah, waaja daan way Moustapha mat na jomba way ku koy jomba way buntam la ñuy tëj ba dootu way waaw <laughs> dafa gaa yi comme noonu seeni na yéen arab moo tee def koy war a wala <laughs> jërëjëf yoonu géej gi jërëjëf sëñ Ablaye xam naa ne bu ma ko toppee moom ca la émission bi jeex dama doon dañ doon mosal tuuti rek wan ne denc nañ yeneen nag <laughs> yoo xam ne ni ëpp na deux ans pass lu ci nekk mën nañ koo génne eh, lu xew rek daañ ko làqarti am na leen loo xam ne dañ koy lijjanti ci lu bokk ak leneen li ci kaw xam nga sëñ Abdou Karim Touré dani mhm. cheikhun ana raaba fil arda i jahadahum xataxtawa mhm. maxtawa an kam wa an xeeti la boo xam ne mhm. dafa génn ci biir ay soppeem dem ci terrain neutre ci biir ay noonam